jëre ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu am kontante ak mbégte comme nuñ koy defee saa ne ñu ngi toog koo xamante ni ci làmb kenn du ko présenté muy suñu papa mbay Guèye nga xam ne ndam lu ne indil na ko écurie Fass jaloore bu ne def na ko ci làmb boo déggee euh, li wolof naan noppam ak borom ay jamonoy per Mbaye Guèye fekkewuñu ko waaye dégg nañ ni mu ne million moo ko indi ci làmb ñu ne million yi ngay dégg Père mbay Guèye mii moo ko indi ci làmb ba tey ñu ngi dégg ay million ci làmb kon lu lu ci waay am rek war nañ ko ko mën a sante moom per mbay Guèye ñu koy sant bu baax di ko gërëm di rafetlu toogaay bi nga xamante ni wasaare làmb siq nañ ko ak moom Père maa ngi lay nuyu. maa lay fay solo maa lay gërëm di la sant ci émission bi wasaare làmb la sant ndax li yombul. di fàttali mag yi démb yi dafa baax trop dina tax euh, xol yi mën a si démb waaw loolu baax trop macha allah. père tey ñu buggoon waxtaan ci ponk bi njëkk jëmmi per Mbaye Guèye li ko dugal ci làmb ak ni mu def ba doon mbër ak ni mu def ba doon champion ak ndam yi mu daan am loolu yëpp lañ buggoon waxtaan li njëkk mooy li la dugal ci làmb. ma dugal ci làmb bëgg-bëgg rek. ak tamit euh, xam ne bëggoon dimbali samay waajur parce que en 1967 laa commencé bëri làmb mais avant loolu danaa bëri mbapat di bëri ay saaku ceeb yooyu di dem ci mbapatu Pikine yi ay caaro yi ay tëngéej euh, ba Ngor ak Okam dafa di bëri ji ci jamono jooju euh, maa maa ngi nekkoon après nag. mu dugg armée génn armée yokk sama doole xam ne mën naa dugg ci bokk ci làmb ji mën naa ci bokk def dara mën naa dimbali sama sama waajur mën naa dugg ci làmb ji. en général américains yi wax ne lii mooy tax ba nit nekk champion. Euh, la pauvreté wala njàng ngay jàng ba mën dem université nekk ci école yi di mën nekk sportif bu mag wala nga pauvre amuloo foo jëm nga def sport pour tamit mën ci am dara loolu mooy indi nit ci loolu loolu mooy indi ci làmb nag waaw. nga mbapat foofu yëpp nga wax ay pikin yoof ne nga jaar fa mbappat lan moo la dugal ci arène. arène bi sama benn xarit bu tudd Fagg numéro 2 moom bëgg benn at moo doon bëre ma ànd ak moom dem Thiès muy bëre daan ñu koy daan après nag mu ne ma dama bëgg nga bëre. ma ne ko man mbir du sama football parce que j'étais footballeur avant may nekk mbër footballeur laa woon damay football. mu ne ma mu boole Pambay Pambay sama dàll pour bu bu bu bëggee entraîné ji football mu ndimb sama dàll. ma def tànku dem ba gendarmerie dem entraîné ji ak tànku yi après euh, faga un am benn bés mu ñu avance. dama am am naa la combat dimanche prochain vendredi la ma ko wax. ma ne ko lu ñu may fay. mu ne ma 750 ma ne 750 mu ma ne ko indi avance bi mu ñëw ma 350 xam nga 325 yooyu daal ma jox ma mu nekk avance bi ma jël ci dibi ak sama gars yi ñu commencé ko lekk dibi kindi yooyu ak juróom-ñett 10 francs 10 francs euh, ma jël ci 10 ko lekk ma ñoom ba ci sa kapkan ñu lekk ko pare ñu ne dimanche ji daan ñu ñu dem bëri ji daan. ñu dellu si ñu ne combat mu war a bëri ak Sambou Thiaré ah, benn séeréer la woon fee mooy mille cinq cent jamono mille deux mille deux cent mille deux cinquante. kon kon jóge nga ci sept cent cinquante am deux mille deux cent. waaw ah, deux mille deux après ñu jox ah, après ñu fay ma ñu fay ma deux mille deux cent mille deux cent cinquante avance bi mooy bëgg sama jox ko mu ñaanal ma. moo nekkoon sama sëriñ nag njëkk ma wut sëriñ feneen moo nekkoon sama sëriñ moo doon ñaanal ñaanal ma daan wàcc après ñu boole ma ak euh, euh, Baye Demba Waar ma daan ko ñu boole ma Arona Mane ma daan ko ñu boole ma ak euh, agent ma ma daan ko ñu boole ma ak borom sam mbar ñi ma daan ko ma commencé yéegi nag ñu boole ma ak Papa bu caaro yi Euh, euh, non avant Papa ñu ngi boole woon ak euh, ñu ñu boole woon ak ma daan ko. après xam nga six six combats ñoo xam ne ay deuxième combat la. mooy la ñu doon bëri deuxième combat trois grand combat laay bëri. ñu boole ma Papa Papa Kane bu caaro yi fay ma quarante mille. xam kon mu ngi neex si nànk-nànk. fay ma quarante mille à l'époque mu bëri moom ñu ñu machine ñu bëriwaat si dimanche bi ci topp bi ci toppaat. ñu boolaat ñu. ñu boolaat ma quatre-vingt mille. kon yaa papa kan da ngeen a bëri dimanche tey ngeen nul dimanche bi ci topp ñu tëggaat. bi ci toppaat ñaareel dimanche bi ci toppaat. quinze jours après ñu boolaat ñu loolu amatul léegi. ñu boolaat ñu ma daan ko daan di nag saa njàmbur am grand combat daan ko. bëri Ibou Senghor daan ko bëri euh, euh, kii Samba Diaw daan ko. bëreeg Souleymane Diaw daan ko bëreeg ki nga xam ne moo di euh, Ousmane Ngom daan ko léegi nag ñu boole maag Robert Diouf le 25 décembre la bëreeg le 25 décembre la bëreeg euh, Ousmane daan ko ñu boole ñu le 2 février ñu boole ñu ak ak Robert xam nga mu ci le 25 janvier février moo ci topp. ñu mu daan ko bi en mangeant mu bëgg ma ne man ci làmb ba ma daan ñëpp ba téye drapeau ci Robert dëgg daal yi ñu soog ma ñu nag boole ak Boy mu daan ma yi boole mu daan ma nag ma ne damay fay. six mois après ñu boole ñu bëriwaat ma daan ko. kon xam nga maa ngi ci yoon ba léegi ki nga bëreel mu daan la nga six mois après nga bëriwaat nga daan ko kooku xam nga loolu mooy làmb. làmb dafay dafa ay dafa baaxoo loolu dafa baaxoo bu bu bés bu bu daanee nga nga jël revanche da war daan mais léegi gars yi dañu jël revanche duñu daan kenn daan leen deux fois xam nga loolu man mosuma dal. ay 2-0 wala nga jël revanche mbër mi daan la ñetti yoon. mu ñetti yoon. loolu moom baaxul. loolu mbër boo jëlee revanche moom da nga daan loolu laa xamoon ci ci ci bërikat loolu moo nekkoon sama suma xalaat daal booy ma koy doxee. mu nekk champion boo xam ne nag euh, dina international ñëpp xam ma fu nekk. ci réew mi ak bitim réew ñëpp xam ma ma may may defar nag ay defar di defar ay mbër. defar Tuubaa Joor defar Birahim Ndiaye defar euh, Papa Papa Kandop defar. Euh, Euh, Mor Nguer defar euh, Moustapha Guèye ak ñeneen ñeneen ak xale yi fi nekk ci jamono bii di bëre ay caat maa ko jàngal bëre maa ko jàngal léewtoo maa ko jàngal ñuy dóor gauche maa ko jàngal ñuy songe maa jàngal lépp concorde maa ko jàngal lépp ci bëre Mbaye Guèye junior maa ko jàngal lépp alaay Pythagore maa ko jàngal lépp ci bëre sama loxo lañu xame luy léewtoo ak luy dóor ak luy song sama loxo lañ ko xamee kon nag defe naa ne am na lu mu def ci Sénégal ci loo xam ne li ma ko delloo njëkkal tamit yàlla dina ma ko delloo parce que euh, nit ki su liggéeyee dañ ko war a fay te yaakaar naa liggéey baa ci Sénégal rek loo xam ne nit ñi war nañ ma ko delloo loo tax ba may woo président de la République mu dimbali mbër yu mag yi mel ni man ak ñu mel ni ak ñi mel ni ñeneen ñu ñu def dara ci réew mi ñu dimbali leen. jox leen ay teraanga yoo xam ne dañ ci mën def dana fekk seen njaboot léegi soixante-quatorze ans la am ñu am ko soixante-quatorze ans ci ci ci mbër balatu baratul ñu ñu xanaa maam moom mag ci gaa yi. waaye ñeneen ñi des ñëpp maguñu ma dañuy maase wala mag leen kon nag war nañu fàttali ko ñun ñi xam ne mag ñi dañuy dox suñu wàccuwaay loolu mooy jaadu waaw. loolu loolu am na solo trop waa Sénégal. yan dëkk nga dem représenté fa Sénégal. Euh, demoon naa Canada Super Franco dem naa fa man une fois la génn rek Super Franco laa génnoon au Canada fekk euh, francophonie moo woote woon mbër yëpp ànd ca man Robert ak Bukki ñoo demoon ak maam góor gi ñoo demoon maam góor gi pour côté bàkku yi la woon ñun ñii bëri ji waaw yooyu yooyu yooyu demoon. dinañ fa dem nag parce que ba na fi bëri yoo xam ne soit euh, xam nañ ne ñii ay techniciens lañu kon après nag mu dem wante sama baram bi moo damoon ma faj ñu ma ma bàyyi. ma ne man du ma def loo xam ne bu ma gaañoo du ñu faj ma bàyyi Moussa Diagne moo dóor ma dóor dóor tànkam fii sama baram mu damm gars yi faj ñëw faj sama bopp wér. ñu owaat moom bañ bañ kon nag loolu war nañ bàyyi xel kuy bëri loolu ba loo xam ko war a faj. mais faj ñu ma ma faj sama bopp bu wér ñu bëgg ma waat ma lànk mais ma dem loolu mooy mooy mooy parce que nit dangay am soo da gëm sa bopp xam sa bopp boo xam sa bopp soo gëm sa bopp loolu moo moo ma daal nag ci boobu jamono waaw. loolu ñu bi nga déparé. yaa ngi déparé ci sept cent cinquante ñu ne làmb yow yaa ci njëkk a fayeeku un million sa ban combat la woon Robert Diouf dañ dem ma xool làmb ji làmb ji mu njëkk a bëree stade Demba mooy contre Robert Diouf ma dem xool làmb ji mu fes del ñu ñu ñu demandé mille francs le ma ne kon da ngeen ma fay un ngeen demandé mille francs da ngeen huit cent francs fay huit mille loolu moo nekkoon sama xalaat man maa ngi ànd sama sama rakk ba tudd Malick Guèye mu dooleel ma ci trop te comme juriste la woon ñu bind yëpp ci kayit ñu ne ñun balaa ñu bëri ci combat bu mu doon dañu fay un million. ñu bëree contre Robert ñu fay ma un million fay Robert huit cent mille loolu loolu démarré woon après nag ñu commencé di monter ba trois millions cinq cent maanaam Papa Kane mi mi mi baal suñu revanche ba trois millions cinq cent lañu mujj lañu mujj bëre loolu mooy li nga xam ne moom laa defoon ci làmb ji ci ci révolutionné làmb ji ci bi ne ak accoutrement tamit defe naa defe yoo xam ne am na solo ngemb dañ ko fi indi indiwaat ne moo maam góor gi di ngemb ay séer yu bari yu bàkku saa yu ñu bëri dem bàkku yu baas bi topp yu dem ñu daana bu ñu daana ñu dem bàkku ji bu suñu amateur ah, blouson tam ko jëkk sol fii ci Sénégal ay blouson ñoo ko jëkk sol Sénégal bu tamit defaraat écurie la ñoo ñoo ñoo jóg defar écrit écrit bi ñu yoroon mooy Fass boobu dañu dégg cap les capables ah groupe bu ñu rek mais du woon écrit waaye après nag ñun ñu ñëw laa defar écrit écrit Fass après écrit Séré soo ko topp ak yeneen écrit soo ko ñëw kon nag ñun ñooy original bi ñeneen ñu photocopie la ñu. comme ni ma koy waxee gars ma ne Fass mooy original bi mais ñi des ñi ñu ñun ñoo jëkk am écrit au Sénégal. après nag ñeneen ñu soog ko am. kon écuries yi nekk ci Sénégal yëpp école la waaye Fass université la. waaw loolu loolu dëgg la loolu doon lañ ko wax doon lañ wax Fass mooy université bi yeneen école lañu loolu doon nañ ko wax loolu dëgg la ñu bari fi ci ñu lañ jàngee lu bari dem beru doog soog am écurie di eh, entraînement yi bari sax si ñu lañ ko jàngee ñu bari si ñu nekkoon si ñun di jàng si ñun ba pare ba mokkal soo ko beru ji loolu dafa am loolu moo am ci Sénégal. noo gisee léegi làmb démb. ak làmb bi tey démb mag ñi niñ daan bëree comportement bi ñu amoon ak par rapport ak léegi mbëri façon seen taxawaay ci làmb ak comportement bi ak façon bëre bi. waaw bu njëkk moom démb moom làmb démb ngor loon ak fit ak jom ak mën a bëre waaye léegi da ngay am doole rek ñu jàngalool tuuti box jàngalool nooy bañee nooy bañee bi la songee jàngalool song rek nga dem bëri. di nga am doole rek nga dem bëri loolu mooy mooy yàq làmb ji nag. parce que màgg bëri dañu bari ci ci làmb ji léegi suur bëri dañu bari ci làmb ji la waaye euh, euh, bañ koy way ci tëngeej dañ ko naan suur bëri suur bëri toogal làmb di goot la xam nga loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy indi bu làmb di gootee suur bëri du du suur bëri moom ci ci ndaw yi la yem rek waaye nag euh, ku am xam-xam bëri dëggantaan jàng bëri moom faalu suur bëri moo loolu gën a gudd gën a rëy mu gën a nangu parce que dafa jàng bërëb mokkal ko te jàng ko pour kenn nit rek ko jàngoon pour nit ñu bari loolu tax làmb démb nag technique la woon ak euh, jom ak ngor ak mën a bëre loolu léegi nag léegi nag euh, da ngay am doole rek ñu la kaay bëri ji kaay ut si xaalis ci làmb ji nga ñëw dugg ci ut ut ut doole am am ñoo jàppale rek nga ñëw daal di bëre. su su su yàlla dimbalee nga daan ñaari combat ñun champion ko parce que am nga doole léegi bu njëkk nag ñun dañu daan bëri ay mbapat ba ba sonn dañu doon bëri ji arène ay ay combat yu ndaw ba sonn soog a accéder ci ci mag ñi waaye léegi ku ku nekk ku neex rek nga laaj ku la neex waaye nga laaj. mystique mystique gu démb mag ñi daan nañ def mystique comme ni ko xale yi daan defee. léegi li ci am léegi dañoo favoriser mystique. waaw mystique la moo tax dañoo mën lu bëri nag mënuñoo bëri moo tax. ñu bëgg mystique dañuy mënut a bëre ku mën a bëre mystique ak ñàkk mystique nga yemale. li ngay li ngay bëree da nga koy saxal lay jóge di màcc ci yow nga koy bëree waaye nag doo doo jiital mystique rek ne ne mooy mooy mooy affaire bi loolu baaxul. ñun dañ dañ doon def tuuti mystique nag daanañ ko def nag daal di ñaanlu takk ay téere fii di sangu wante duñu def ñu ko def ay millions ñu koy def ci mystique war su ma doon bëri léegi du ma mystique cinq millions jamais léegi nag ki trente millions ngeen ko ci mystique loolu am loolu baaxul lay dese léegi dafay trente millions bu defee cent dix millions nga nga jël trente millions def ko ci mystique bi quarante millions ngay dese quarante millions lu lay jëriñ loolu amul solo nañ jàngi bëre déggal si ñi leen di jàngal bëre ñu déggal leen te am ngor di leen dimbale ñi leen di jàngal bëre mag la ñu léegi amatuñu doole léegi nag ñoo leen war a dimbale ñoom en revanche war a dimbale bu leen dimbalul wàcc seen seen loxo loolu ci nekk. xale yi fi mu toll nii kan nga ciy gis rek gis jëmmi mbay Guèye ci moom bëre gi jom gi fula ji. waxoon ne waxoon naa ne euh, euh, xale parcelle bi Modou moom laa gis daal mu xaw ma jël tuuti ci audace bi. am ah, une audacieux moo xam ne moom paaralu kenn day yor ak bëri daan wala daan ko. loolu boobu moom moo jël ci loolu moom xam naa ne boobu boobu moom jël na ko ci man mais keneen ki ba gis nag mu ngi nekk sama kër léegi si Serigne Ndiaye mi ngi ñëw nag matagul waaye mu ngi jàng keneen ki ma gis mu jël boobu yoon du ñëw attaqué rek dóor dóor song wala mu dóor ut bunt ut bunt ñu song ko mu daan loolu moom gis naa ko ci moom. waaw loolu ñaar yooyu daal laa gis ne ñoom aw nañ fi ma awoon yoon bi ma awoon aw nañ ko waaw. kon ñaar ñooñu tànk bi ñu teg ci làmb bu buñ ko teggiwul lépp lu champion di doon dinañ ko doon. incha allah dinañ ko doon incha allah buñ ko teggiwul jàpp fi jàpp rek déggal ñu di ñu di entraîné te bañ a def comme ñenn ñi def lu gros dos léegi léegi ñu am lu lu ko seen jot ci làmb waaye buñ ko bàyyee rek def leneen nag amal na ñeneen ñi euh, dañuy li dal ñeneen ñoo leen dal rek te loolu baaxul. père mbër bu bëgg a doon champion yan tànk lay doxee. day teel day entraîné teel entraîné teel tëdd. teel a yeewu di lekk ci këram. mbër du du xaaraani du lekk ci kër jàmbur lu bari. xam ñu rek mu bañ parce que am na ñoo xam ne say xarit lañu dañuy togg benn bés wala nga ñëw fa. du fu jot rek foo jot rek lekk. déedéet loolu mbër baaxoo loolu. parce que làmb dafa fiir. ci nekk kon nag. dañuy war a sàmm seen bopp sàmm seen seen seen seen seen li ñuy lekk ñu sàmm ko boobu ñuy bu ñu bu ñuy lekk fent xam li ñuy lekk ngay ngay ngay teel tëdd di teel a yeewu di teel tëdd pour récupérer la teel a yeewu pour teel entraîné ji la le matin def footing bu wóor sàmm sa bopp nag bu baax a baax ndax léegi boo sàmm sa bopp da dugg ci loo xam ne loo ci mën a gaaw a gaaw a génn sàmm seen bopp bu baax a baax sàmm seen ngor nag. ak seen diine parce que mbuur mu amul diine tamit mu ngoog moo ko moom bàyyi may ñoo yem rek fu leen neex tëdd fu leen neex fanaan fu leen neex yendu te loolu baaxul nañu nañu sàmm seen ngor sàmm seen diine te nag euh, am pas-pas bu baax a baax bu ko defee rek lu jot dinañ ko jot te entraîné entraîné ba sonn dafa jëkk ci entraînement yi dafa mujj suñ paree dem tëdd nelaw lekk rekk ba suur dem tëdd nelaw loolu mooy wàllu mbër ku bëgg am dara ci làmb waaw te bañ a wor rek ànd ak ñi nga àndaloon démb si bi ngay ndaw ñu tànk nga ànd ak ñoom toujours bu mag loolu moo gën mais di changer subukaay tey nga ànd kii ëllëg nga ànd ak keneen loolu moom baaxul si baaxul si mbër loolu jaajëfal bu baax a baax a baax nga xam naa ni euh, waxtu bi liñ jël ci waxtu ci yow bari na waaye dañ jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf maa ngi leen di leen gërëm yéen ñii mag ñi ñu dundal mag ñi. dund nga am réew parce que démb fàttali démb dafa am solo kon yéen ngi fàttali démb nag euh, ba démb tax ñu wax tey bu bu ñaan tey démb tax kon yéen ngi fàttali démb nag euh, ñu ngi si gërëm di leen sant di leen jaajëfal di daal la nga am télévision incha allah. yaa jërë ngeen jëf mbokk yi suñu papa Mbaye Guèye lañ dalaloon waaye lancé na message boo xamante ne bu am solo la ci président de la république ñii nga xamante ne ñooy magum démb. yor làmb defal Sénégal lu ne ñu ngi ñaan président nga woo ko jàppale ko rawatina Marème Faye Sall mi nga xamante ne mooy suñu yaay doon yaay réew mi yëpp ñu ngi leen koy ñaan parce que Papa Mbaye Guèye ku ko jàppale làmb nga jàppale nekk na koo xamante ne jot nañu jëfal ko ci làmb jot nañu woo ko décorer ko ci làmb ba mu xam li ko làmb defal ndax defal na làmb lu ne kon. à propos moom sama nit la. bu feebaree moo tere ma dee. in si ginnaaw yàlla moo tere ma dee moo ma yóbbu Abass Ndaw jox ma 2 millions ñu ma dee lekk lu neex rek ak di faju may faju di lekk lu neex bu am 2 mois ci hôpital ba ñu génn ma mu wér nga. waaw léegi nag euh, loolu maa ngi koy sant ko si gërëm maanaam ku baax na wax dëgg yàlla sama nit la moo tax lu ma lu ma tudd làmb lu ma làmb ma tudd rek tudd ko ci. waaw maa ngi waaj def rek soixante douze heures face mbaaw moom ak président bi ñoo ko ñoo ko ñoom ñoom lay tudd. ak Matar Ba. ñoom it boobu làmb sànq yi ma def Fass mbaaw ñoom laa koy de incha allah waaw. jërëjëf kon mbokk yi dégg ngeen lépp noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo di tàqaliko ba léegi incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërë ngeen jëf.